ah nag ku jaar nag fu la neex fital di def la neex loolu yoonu kenn nekku ci yaa ngi yàlla yaa ngi sa bopp ak yàlla ak bis bañ ci ba ak ak ak sokuraas sa ak ak ak ak bàmmeel ba ba ba ngay ci ba dara dara dara réew ci lépp lépp mi ngi ci kanam din di nekk